absente nii la mbaa jàmm la yow nga buso ah man di buso mii temps yi visage bi ma gis ci buso yow buso mbaa tonton saay saay dañ dañ dab ci yoon bi ah buso doy naan ah amul on on de buso yéen xam nga lan la sénégalais problème am mooy dangay gis réalité di ko wax ñu naan la on on àddina bee wëlbatiku dara wóoratu bu sa doom jógee école ne patt pattiral stress di tiit danga koy laaj lan la wóorul xale yu bëri ñu ngi leen loqati ci àll ko nangoo wax. Nabou yow est-ce que def fa ça va. naa waaye lu lay. Ah, ah, ah dama bokk ci xew. Oumou. yow ñu la won da nga am repos médical 3 jours. 3 jours yi iya, jeex na di. ñeme nga xew nag ñeme nga xew de. yeen lan ngeen di def fi xana yegul leen ni set bank ci mbedd mi ngeen tok iya, ni iya, rek yéen. sang bi cham lan nga fi tane wir keng duma ñew ci xew bi nak tok dem len ngeen jëri ci bi la duma jëri la nañ dama la sama sama sama fa aca ci gaw ji la waaye ma def buso buso do len jëri ci bam bi top ci goro nga ci kër gi ñama nga xew nak ñama nga xew nak tan umu nañ waxante deug yow ya dal la rom yow de ku la raw dek sa jour bu saf rek leel yóbbu ma mas yoy def ma sa way sa musóor ñu melni ni de bismillah bismillah dal ani bàyyi ñoo ni na kenn ñëw fob ko wala mu boot ko ndax warul laal suuf ba yegg ci néegam ci kaw lalam. foog mel ni. waaw boot wala foog rek. loolu garaawul Omar moom bëri na bàyyi am doole ana Sadix sax. Sadix man Sadix moom fu coono nekk du ko fekke wa nga moomu amul njëriñ. Ibnu kaay nga boot ki yow. bon oh, grand man doole boot du ma am kenn rek laa ko yéene nekk ma fii boot ay jabar Omar Thiam affaire yooyu. ah, ah, ah yow nit ñëw. ah, ah boot ki. bu ma ne ko nii lan laa waaye waxuma loolu boot la wax wa wala

kan mau ke dalam ih kunde nëbbu gay mo ngi bëgg a xar bu mu ñoo ma dof ko fi feeg bu ci kër gi de mom bul sax jema na da ngay atté wala da ngay nan da ngay jema jouer affaire de arbitre ma lo sama yoon ta ci ne match bobu ma nga aju sa kaw tur bi moo gën kan ci yow de lay allo xawayo la de guerre la taxawé Omar Thiam ah, Omar Mo Omar indi ka fi gaf di Omar Thiam luy lolu. sa jabar ji dafa gaf. yow nan la wara boté sét mu ne nongu mu daanu ba nirmelu loolu gaaf la. lan lañ doom xoolee ba koy daaneel tamit léegi loolu la moo ciy pere. man nga koy laaj man mi di sa ndey man la laaj xam pexe yow mi xoolee ba indi fi gaaf. man xamoon naa ni musiba naaru laay. man aw ma si problème bu leen naree déranger rek. ngeen génn abal ma kër gi man ma des sama gaaf. kan mooy génn abal la kër fi sa a ñàkk jom bañ la abalee néegu lay laay yow yaay kasara. nga naan maa ngi génn. waay la sa ndey ba mu duggee ca kër ga ba léegi fayul tasul oto police du mais dañ déglul ay lii kum rayul waaye xam hop hop hop naa ne nangul naa la de Omar yow oh. yow kii daaneel sa bàyyi nga naan cas ma yëkkati ah goro wax day rafet fi fi dara la yàlla defal jàmm amiin laaw la càmm jëkkër na sant jàmm rek maa ñu rek li nga wax noonu bàjjet ma reer jëlal five nga jox meer bi five comprends nga su ngeen palee ngir yàlla ngeen abal ma amal li ma la wax lepp li téeméer la may dama tok lu yàgg téye sama bopp di xaar bis bu rafet yow yow yow eh, yaay mbam yow lo rek nga ci xalaat ni bokku na si li ma gëna a bëgg de mère maa ci su mère ay aja ñewu ñu nag man mëna ko ma dem nak ah lo xew dëgg yàlla ma dem bay fi sama doom ji mère ki kii mëna bu mu bu yàgg bi mu rëccee rëcc rëccaat la léemu boppam bu yàgg kii lim boppam bay di doom ñëwal ñu dem comme que nag kilifa nga kilifa laa ñëwal ñu gisee ñëwal vocal ko ko rek ah, ah waaye itam ah, eh, jaam nga sant dégg nga li la sëlëm sa bopp nga sëlëm na ci wutum njaboot gi. ma eh, man daal xaw lan la dafa mel ni xelam dalul de. est-ce que du li mu namm yaayam la. bu sobi yaayam demee léegi mi ngi bëgg a yàgg. waaye tey jii ni ma ko gisee dafa mel ni leneen la. papa xam naa métit bi moo commencé ëpp doole peut-être bi dafa doon gérer mais fi mu nekk àttanatu ko loolu moo tax. bu Bousso ak âge bi mu am ne dafa sensible trop waaye faw ngay waxtaan ak moom ndax ndenkaane dafa for lool. man mi sax waroon naa waxtaan ak moom bu yàgg waaye gis nga jamono yi dama toogul benn yoon. dëgg la kay dinaa waxtaan ak moom incha allah maw mu nu mu def. kooku daal au lieu mu toog noppalu dallu moom mi ngi topp mbir yooyu rek. papa mag yi aada yeeg yooyu ñoo leen dese xam naa loolu la rek. n'est-ce pas suba la résultat wam yi médecin bi ah de lañ docteur bi wax. dina baax. salaamaaleykum. salam salaam. maaleykum salam waaw. na salam def. oui ça va bien. Badiane. bien.. ça va bien. ça va alhamdulilah. alhamdulilah. xanaa dem de ku ñu yóbbu. Eh, xaaral mu déposer. sa Sadikh sànq ba léegi maa ngi dégg ñu ne boppam day metti ba yéeg na si kaw tëdd bàyyi Xalil yóbbu ñu. waaw nañ ko yemu yóbbu ñu. Alaaji yow tamit Sadikh fan yëpp mu ci say course di vaillé dama ko ñëw dañu woo Xalil rek. Faa waaleel ma Bambi Ndiaye ne ko mu ñëw sama voyage bi moom fas yéene maa guddee damaa fas yéene fajal. ana fan nga jëm. waru jambu yo ma sa febar jabar ji moom se jele see di. bëri yërmande doo nga ko jàpp Kori. mo taxit alaaji ne woon naa la Mami nyaay ëllëg ak jam dina and ak mom ci maamadi pour ñu sangat ko. mami ko ngaa nga sa setti ni mu doon waxe ak man sa daf ma jep me dana ma te nee na daf ma sekhlu abata massa. li ngay dund nii xam naa ni métti na lool waaye mu ñëw. maam bi wax ma ngir yàlla lan laa war a def lan rek laay def maa ngi soog a comprendre li tax nga doon jéem a eh, loolu du solution de dama la koy wax léegi mu leer. Jojo dangay gën a waxtaan ak moom rekk dina la saaga dina la yuuxu dina la wax lu la metti waaye sukk du la teree yóbbu say oom dina mës a wàcc lii yëpp faa la dëmm bu bon bi mu doon sama bañoon nit ñi xamal ma song naa ko bu yàgg joojo lan moo la teree def ni moom ngay dil ci suuf du moom suumaraa la bul jooy tabaam ah, bi bu sama maam nee na ngeen ñëw dem bu suuf la dara mu doon nemmeeku rek xam nga maa yooyu mënante wuñ loolu lañ war commencé nag comme que sa yaay dem na te faa tamit ci la topp kër gi man ak yow ñoo ciy des. ah lan la danga choqué kon xamoo woon ni faa day dem bàyyi la fi bu sa yow tamit nag faa day joué rek. li muy def ci dara day joué rek te yow nag nga yóbbaale nga ci moom kër gi dama yow fi des Mais papa nee nga ñëw déposer leen Khalil qu'est-ce que tu fais docteur li mu wax dafa leer analyse biñ c'est pas crédible la problème est meuna nek ci man ken xamul meuna baña am mon cœur babe Holma. ma bu nek di inquiéter pour lolo parce que je sais que tôt ou tard en fait on aura des enfants tu n'as pas de soucis à te faire. ok. cool papa a nga yobbu ko mom maman Oumou ak Coré. man ana c'est-à-dire ma ba éviter. la preuve que non c'est pas parce que yokk là Diouré da ngeen am ay divergences que bokkoo leen gis que forcément de la ok ah, d'accord ben ma je préparé wu ñu n'est-ce pas. Hmm. Bambi Vipère ak man ci même bi da tour ah daf may rey ba pare eh, maa ngi sa ginnaaw maa ngi sa kanam maa ngi sa wet maa ngi sa kaw maa ngi sa suuf. tay sa mbëggeel géwél la ne de lii nga indi. muy bu géwél beeg law ba beeg yëpp benn la ñun ñëpp ñoo bokk askanu ñee ñëw. Hmm. baax na may wàcc. sinon tu risques de mettre vingt ans avant venir. Hmm. Mhm. Hmm. oui. Vous les amours sama son faire. Je me présente d'abord, bienvenue chez au Sénégal. Merci. Monsieur Bay, conseiller commercial, c'est monsieur Ipno Thiam, le prince héritier de Ndjuga Enchanté, monsieur Thiam. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Alors, que puis-je faire pour vous Ben, je viens chercher une voiture pour ma femme. D'accord. Ma beauté sauvage. C'est elle qui tourmente toutes mes nuits, mais aussi elle illumine mes jours que pouvez-vous me proposer comme une belle chose hein? Tandis que ici, tout est beau. Waouh Tout à fait. Donc, comme vous pouvez le voir, nous disposons d'une large gamme de véhicules très modernes qui pourraient parfaitement répondre à vos attentes. Par exemple, la Baïk X35 en bleu, la Baïk X17 qui est un peu plus robuste et la Baïk X55 qui est juste derrière vous. Elle est magnifique. Vous l'avez dit, elle est magnifique. Oh, elle est superbe. On fait le tour D'abord, la voiture dispose d'une calandre très élégante, avec des feux LED à l'avant comme à l'arrière, et des phares Xénon juste en dessous. Ensuite, vous avez des jantes en alu de 18 pouces. Les feux arrière sont LED, une caméra de recul et les capteurs. Les poignées de portière sont incrustées. Et pour ouvrir, c'est très simple. Vous appuyez juste un peu. Et vous tirez. Je peux? Mais bien sûr, allez-y. Merci. de l'espace à l'intérieur. À l'avant comme à l'arrière. Vous avez un système de clé keyless qui vous permet de démarrer le véhicule sans pour autant euh, introduire la clé. il suffit juste euh, de, le mettre à côté de vous. je, pourrais mettre ça dans ma poche aussi. bien sûr, bien sûr, bien sûr, Voilà. Donc euh, vous avez également une boîte de vitesse automatique avec sept rapports de vitesse. Le frein à main est électronique. Et pour le démarrage, c'est très simple. Il suffit juste d'appuyer sur le frein, puis sur le bouton Start. Le moteur est très silencieux. Et ce qu'on remarque en premier, c'est le tableau de bord, doté de deux écrans, dont un au niveau de la console centrale qui est tactile, et un autre côté conducteur. sur l'écran tactile, vous avez presque toutes les options du véhicule. Ça, c'est le menu principal, avec le système radio, euh, le système de, Bluetooth et multimédia. Et vous avez la possibilité euh, d'aller à la page suivante en faisant un slide vers la gauche. Oh. Et vous avez accès également au manuel euh, de la voiture ainsi qu'à toutes les informations. Les balais d'essuie-glace électrique. Ah bon Exactement. Et ça, c'est le système de parking automatique. Avec le système de contrôle d'adhérence. Oh. Voilà. Donc on a fait le tour un peu au niveau de l'écran tactile. Alors, euh, je vais vous montrer maintenant les différentes options sur les commandes du volant. Ok. Celles de droite vous permettent d'accéder à l'écran tactile. Donc il faut noter en grosso modo que pratiquement toutes les options du véhicule sont actives. En tout cas, Monsieur Mbaye, tout ce que je peux vous dire, cette voiture, elle est superbe. Elle est superbe. C'est le mot. Merci beaucoup de m'avoir euh, tout expliqué. Sinon, tu copine, t'as gagné un programme. Mais Pousso, ma lay que dama commencé à renfermer sur elle-même. Papa Ndjouga a fait la même remarque que moi, mais beaucoup m'ont confirmé confirmer parce que dama doon bañ muy inquiété ou ou quelque chose du genre. Mais su ma sañoon mu génn ci li mu nekk nii. Mbaye calme-toi Issa Bousso xale la te ce qu'il dal nii yëpp dafa bëri si moom attanu ko à un moment donné il faut que mu def effet c'est normal. loolu mooy li am mais je ma sañoon tey jii nii ma fexe ba mu génn ci phase bi mais je sais pas comment faire c'est hyper simple li nga wara def tu nga gën ko vois, tu vois jàppale ko et puis surtout que tu sois patiente ce qui est sûr que... tu es la meilleure chose qui lui soit arrivée dernièrement Normalement, mom Tu ko jàppale boobu ba léegi yaay nekk ci mais gën am approche bobu et surtout sois patiente d'accord dina merci mon cœur. man moom stress laa am fi ne pour génn jàkkaarloog paa bi. cuwa nga dem sànq ba tey yaa ngi boros doo pare. Ah, damay sama eh, damay ndékki nag yow mii doo ma jox lii waaw mais what nga bu la compliqué la. xëccal lii rek ko. salaamaaleykum. maaleykum salaam. ça va. sa Kenapa sih yaay sama Hei, xam nga da ngay màmm nag danaa copine ba ma defaral ndéeg régleel muy man waxuma li ngay wax sax waaye yow faa lan mooy sa problème léegi da nga bàyyeeku de ah. lalatoo dresseetoo ana faa bi ma xamoon démb nag. waaw Nabou yow tamit soo bëggee ma toggal la amul problème dama koy wax su ko defee ma toggal la lu neex nga bu baax après ma jox la dessert tamit. xam nga lu ma soof da nga bëgg garaaw garaaw lu yow boo lu saf man la. Khady Thiam tontoo ko sa bàyyi di laa xam ni nga mel ni ëkk ah waaye yow Bakir lii mbaa jàmm la lan si dama ne nga reculer kii dafa dajee ku ndayam gërëm l'enfant bi nii macha allah xale bu xam valeuru jigéen mu di ko teral ah war naa mën a nekk nag yaay Khady Thiam pour man nii rek war naa fee mën a jur ku ñuy teral waaw mu am ku koy teral nag ngay ŋàpp ŋàpp di wax nii rek

do teud ba naaj bi tang ngay tegal say xott naan ma gorono fanano yang may deg da ngay teel a jigen ju bax day jóg di balé di fomp xam lu ko war ci biir kër gi yang may deg bu bax yakana li nga wax ñep tek nañ ko. lolo waral nak bo paré nga ñuusu ci wañ gele togg añ bi riit ko fi nak mi di pile bool taal du lu may de man sama ndab dañu ñëw gumba may taal.

eh yaay dinaa eh. aku wonge mu dem macam mana ma ne nga bimbing sa bakkan bi eh xoolal xawma mendak am nga matos mau amoo matos gis nga kër gi boo fi bëgg a dundee man dangay ndayu nekk nit yaa may dégg capiche mais ya? Nabou Gaye modère ton langage toi eh MC 16 ta percaya. gueule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

Teranga, ak ponche la fek bax. Setan lin sen program ak baso de punchy de teral gani. Ak di setal xoli. Ak ponche rek, terang, fi la fek bax. Pour que chaque trajet soit une victoire, rendez-vous dans les stations-service Orix, powered by Africa.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 matidi.com Global Textile Asenfal Parcel Assening, unité 12 Tu es Sénélec en déjà gros à demi gros moom man maa ngi leen di xaar ci oto bi dégg nga. eh soo ngi xaaree ci oto bi kan mooy tey matériel yi. d'accord chef xanaa xanaa xamoo ba may def yi man dañ may gaañ daf may neex xaw ma lan <laughs> raax di ma béton. bu neexee sax ciment bi bu tooyul tooyal ko bu mu tooy. gën a kay mais yéen sax xam ngeen da ngeen chou da ngeen mignon de. soof jëlal lii nga yow ñu avancé. dangaa bëgg fóonante trop jëlal lii nga yow ñu

parce que maa ngi doon xalaat tey jii su ma ñëwee ci kër gi nan nga nar a comporté woo ak man nan nga ma nar a accueillir mais lépp nice kontaan soo ñëwoon ay mois avant de dina demee neneen. baax di mais yàlla baax na daal. jàmm mooy lépp sax. j'aime bien. Khady. ana Assa. yow lay def fii. fii lay liggéey. Ah ah Fifi kon ñun dal nañ si tey. ana daf ñuy wàññil wala. ba daf ñu nar a defal prix bi xéwale. war ngeen di wut. am ngeen bana. quoi. tey laa jombal na bu gay ceebu ngente kan la toggal ma ne ndax am ngeen bana. c'est quoi bana ceebu ngente. ceebu ngente kay. xam nga man mi la bunge man maa tooñ sama bopp yow kii on va un peu de tout ay vaisselle lépp lu muy soxla pour togg rek. nañ dem nga ñu fu nekk bu ko Alors, dans les yangini, il y en a de toutes les façons. Oh là là, nerf. Et voilà. Tchim! Man de sey la voyez que c'est bon, nak. Hein. Meilleur. Anna, ah yo def man ça va pas trop. T'inquiète pas. Ça ira un jour. Ousseynou. Sa golo est-ce que tu duñ ko bàyyi je bëgg a génne kii tuuti changer air. chagrin d'amour. Attends, j'ai une petite idée. Khady Thiam waxal sa xarit bi am naa bool teg la bi dafa ah c'est bien. j'aime bien. c'est très joli. oui c'est très joli je prends ça. d'accord. Mhm. Oui, ah, c'est très joli c'est très joli j'avoue d'accord. le modèle modèle vitamine. faaw ma jël boo xamante ne day yaatu ndax sama goro ndeysaan loolay nga xal nii di mel ni fas reer bee neex rek yow waaye ibnu lépp jam. foofu baax na fii ak takkee soxna moom foofu di nga fa yàgg de baraada boo allez bon appétit waa maman loo wax nag eh bu ma tojal man nga naan ma maman dégg nga li ma la wax yow ku xool sa extrait xool sama bos xam ne yaa ma ñaari at ku xool say tës xam ne maam yaxi laalo nga yaa mag cere ji ñuy lekk maase laalo génnal ci man ah. na bëgg ci dalaa bëgg laaj rek nan nga gisee première toggam tey ci kër gi. Hmm. reer dàq na ko de. xaw ma demee seen waaj yi moom fan yi daa ñàkk appétit ah Sadix fan yi moom sa bëgg lekk moom daa ne fër moom ah. waaye Sadix du yow laay waxal nii lan la. Oh, nit ki boy wax ak mom tontu wala faale wala c'est parce que amul envie wax c'est aussi ah, simple que ça. yow ay e, laajuma la yow yaay Sadiq han yow bi nga xamé loolu lan nga wuti won keur Bambi. mom la doon set gis na ko Bambi mon amour. yow ma ko yow su la e, topé na def sax. way yow eh ki dang koy comprendre. day jafteel jabar ji. ka jógee e ci gor jikoy leug la yor. ba xam nga ni lëg mooy jafteel jabaram mais t'inquiète pas Maz boo xoolee Dulu may la tàngal du loolu moom kii dafa ñàkk kersa rek léeg day jékki-jékki rek di siisu te soob yaa bëri jikko ne sa doom ji laay xalaat yàlla bu mu jël sa jikko ji kan kii caatam wi ah am naa ni <laughs> dareetu nday tàng na de waaye ay bu baay waaye <laughs> desul ginnaaw de hmm. billaay wallaay yow joojo ah macha allah mu ngi poussé de hmm? xamule ne jigéen la doon wala nattu grand Bakir wet ma defaloo fee bo boo mënatee grand bakit nañu àtte ci bol bi. sako ko sako ko. day maamu de. ok na saako macha hala so amul jabar mom sa xel ay saga rek a ni hmm. ak atay ñu tata jojo ya. yow iya, mom déjà sa dom bi day walé don tata juddu don tante bee faa mu ndaw est-ce que duñu leen maasale rek ben yoon. comme ya? que lepp caameen gi la. bu ñëwé ya don góor na yee bu ñëwé don góor ma koy teg axe man ma koy coach. déedéet kay comme ni ma bàyyi sa di ko see woon mu jaar ci mbaar mi xam lu tar. kan yow mi yërëm na xale bi de. man de instant lay ragal mu niroog moom yàlla. Eh, non non jamais ki ki sa formation lay jaar. du ah. niroog ay esa wesh wesh yooyu non Paris la France quand j'irai autour Eiffel. non ki day dugg ci mbar mi di deg bruit wagn bi nan teng teng teng don gor yalla deug jël ba ay doy eh, na noppi leen lan la lan ngeen di wax. xanaa dëmm ngeen yéen mënoon daw mënoon nday doom sadi yow damay nekk si nga yuuxuwaat yow merde laajuma la ah dama bëgg nga tëj sa lami mujj xanaa moo leen ma saax ngeen gay sa doom la wala doomu kan ngeen topp si doom doom du sa eh sadi nag yaa ngi bëgg a yabaat yow eh eh lan la bakki cam man nga ma bakki cam lan la man nga ma dugal sa tànk ci biir bool bi laa wax yéen di wax nana na man rek Ababacar Sadikh Thiam. papa man dama sonn ñu ne maa sonal man dama xamul lan laa dafa war a mérito li lan la. Ababacar Sadikh Ababacar Sadikh. Bousso Bousso ça va. De laa intéressé. Ababacar Abu Bakar Sadiq tey xale laa gis borom xol bu nooy bi borom xol bu oyof bi kiy yëg naqaru ñëpp ak bànneexu ñëpp tey kooku laa gis xale bi nga xam ne su bàyyi may yàggaan jooy sax mu mere ma ana kan moo tooñ sama doom kan moo jooyloo bëtam tooyal xolam Sadiq waxal ak man waxal ak sa baay diis ma sa soxla ndax mu woyof ko góor gi loolu duma ko mën xam naa ni borom sutura nga waaye soxla soo ko bëggee téye su yàggee mu fot la te ki la oyof nag moo la gën a mën a yenu lu tiis waxal ak man. góor gi sama jabar mooy na ma sama jabar mooy na ma góor gi rey na ma ba ma dee. bu ma dafa diis laa la wax balaa ngaa tuumaal nit war ngaa xam li ngay wax. avoué na ko góor sekk na ak beneen góor ba doom sos sama jabar bi ma tànnal sama bopp tàkk ko di bokk ak moom benn lal mu bokk ak beneen góor tëdd ak moom ba doom sosu si ñi wul dara ci sa ngóora jooy yi tamit amul dara lum ciy wàññi waaye faw nga génne li nekk sa xol ndax li la dal metti na waaye li ma lay bëgg a wax moo ko gën a metti góor gi li muy dund jamono ji amul lenn lu ko gën a metti amul sañu ma saalit nag waaye sama biir boo ma xoolee dee naa góor dafay jooy waaye bu noppee dafa war a defaru amul lenn lu mu war a wàññi ci si nga suturaal sa jabar doomte su ay oomam seddee sax danga koy bàyyi nga saam ko sutura nga xam ni doom ji mu jur tamit sa doom la yal na yeex bés boo fi jógee lu instant am rek moom dana ko am wala lu buso am loolu duma fa mën góor gi cest man wóor na ma ni mën nga ko ndax man ëllëg yow laa bëgg su demee ba ma सुबह बानक गुरु की डिसेट मदर डिसेट मदर है स्थान फेस ना दिल सदैव किंगर डिसे मुंह पलेप सुमल डिंग के इंजबर के जलेप डिंग सुनी बरों ndax moom dong mu mën a yor te nga bàyyi jooy rangooñu góor warul gaaw a laat dana

とせるのうんデゾレアナイドマハワディレクナでもサハリブファラトルランカーレクプレミアファームイデフニアタミンナク خموني رانكا كمهم مرة كل في نيو فيكسي لن يعني ما يجوب نو ميم با en fait sama xarit bi xamul affaire yi quoi ay rancard donc du coup vous n'avez pas de gauche c'est le voilà quand on parle du loup Tijan, Anaï, Anaï Tijan. j'ai failli oublier Tijan Khadi, Khadi Tijan. en fait je disais moom mooy borom géej guider. donc si tu as besoin de virer en mer de plonger voici ton nom. ok. Oui. tu ko tegal. Hein? mun nga wax ni boo gisee tu rek commencé di xalaat di di méditer. un penseur. en tout cas une virée en bateau de ma manière. Hein du bato pirogue la. peu importe kañ Que ko mën a faudra que mu vérifier marée que je de oh oh voilà pas. yow loo sais xam. n'est-ce pas Tidiane. tu veux pas commander quelque chose à boire. non merci c'est gentil. sûr peux prendre le mien si tu veux. Hé, viens à Souna, voilà des golos. Excusez-moi. Khadir..! Excusez-moi. Dame, le ma def. Non, dafa dara. Je vois elle t'inquiète. Mais fait froid. Hein? Alam tu as gagné, nous, ça hein. Mais qui dit encore de séduction, non? Hein. Ouais, il m'a guidé. Un gentleman. Merci beaucoup. ça va. ma de rus naa si xaw ma sa la moo ma dal sànq. t'inquiète naa fi. bon est-ce dem doxantu xaw a digérer tuuti. maa ñëw dem gaale ma. foo jëm. baa ah, ragal ñu dégg am. Ton ami là, il est bizarre. Hein. Comment ça il est plus. L'homme, ah Thank you. yow la Ousseyn kañ nga ñëw fan nga jaar oui yaay sama jabar yoonu yàlla lépp lu la mos tooñ baal na ak dootul amati jeex dootul amati Ousseyn. sa jëf ji ma jëf tey noo ko mënee noo may woowee gisee ba pare tegal ma sotti àkkat si yëfu defeyaan yi mënoo ko bàyyi nekkuma si quoi waaw. waaw loolu foog a sax. xadi. loolu la ngeen di fii. ak fan nga jaas ak jaas waa sama yaay gisu la. moo jaarale woon ba ma fi ñëwoon bee paase. gis nga heure bi jot. que ñëw sa être attentionné. xadi est-ce que ba mu waxaatee est-ce ma noq la. xadi yow la ma problème. ok xamoo yow naka nga mën a jëlee sa blouson. même blouson bi nga ma joxone la dernière fois ma fa ñewé nga koy jox jigen bo xam tay nga ko soko xam. dal Tidiane j'en ai marre marre de faire semblant de sourire d'être heureuse alors que mon bonheur est inaccessible à cause de toi. Khady déglu ma fi li nga génn sa gémmiñ léegi nañ def comme si musul genn yaa may dégg. trop tard wax naa ko dégg nga ko bu ko jaree sax ma bamtuwaat ko. mbëggeel bu soxla du fi ba kenn li ko tas te gën a ko baabel man bu ma sañoon nu la loo Tidiane jéem naa ko fu bañ naa ko fu ne mënatoo bañ mënatoo bañ xale dama ñibbi sa kër nga delloo si sa xel li nga nekk di wax nii si yow la nekk waaye nekkul si man can't kan doen, te lo, lo, je, je, je, je, je, je, je, je, de amor.